direct Siteu bi ngeen gis ne ñu ngi ni jàmm gën di génn nag war a ànd ak Siteu bu mu dem ndeysaan war a ànd ak Siteu mu génn nag jëm fee nga xam ne moom mooy ara nationale mu loo xam ne boobu léegi ñu ngi leen toppal direct bi ci Dakar ba waaye yaakaar naa ne boo gisee lii Malick xam ni lamb amati na yeneen jéego amati na meen xar kanam boo gisee xam ne dañoo war a cëral lamb Malick dina gën a bàyyi xel lamb. waaw xam nga moo lu jàmma gën ki ma dafu jàmma gën sëdëbu pigin maa ngi ñëw abare kii lay toog maa ngi ñëw maa ngi ñëw ramasse lépp yi bëjëg ndeem bul saawa booy yar rek poisson xam na lu koy xaar poisson yabul Siteu sax yabu woon poisson yi ne ndeysaan Ndaysaan Malick Malick Malick génn Siteu gis ngeen ko fii ci jàmm gën Malick génn Siteu gis nga ko génn Siteu génn Siteu Siteu génn na jógee arène nationale fii ci jàmm gën jëm arène nationale Dakar Buzz gis ngeen nii ndeysaan Malick Malick Siteu mi ngi ñuy jubali fee nga xam ne moom mooy arène nationale ngir waajal jàkkaarloo digganteem ak Papa Sow waaye mi loo xam ne yaakaar naa ne Malick Malick gis nga ni ah. dañuy téye Papa Sow rek defeere ko. defeere Malick Malick. non bëgguma wax bëgguma wax Malick. kaay sëgal ma wax la baal caméra nga sëgal ma wax. Ndeysaan Ndeysaan Malick Siteu Siteu Siteu yi nii di génn jàmm mu mel ne maman yi fii la fii la maman maman yi am na lu ma la ne nee naa la ndaw ndaw bu nekk si yoon ay ndaw koy topp ay xale rek xoolal lii. mu mel ne maman yi maman yi génn dem jàmm jàmmaarloo. billaay sant rek ni ñuy sant borom bi rek di ñaan nag yàlla nañ suñu borom suturaal ak boo yëpp non violence nañ dal ak tey kese jarul xeex jarul xuloo. ndeysaan jarul xeex jarul xuloo ko noonu. jarul xeex jarul xuloo ndeysaan Siteu mi ngi noonu di waaj a génn pour génn complètement jàmm gën waaye ba tey mi ngi ci embouteillage bi nga gis Malick mbooloo mi Malick mi li topp Siteu moo moo moo waaye nag juru jaaxal ndax lii mi nañ ko ci Siteu Siteu lañ bëgg juru jaaxal mooy Siteu saa bu génne pop waa jàmm gën yëpp jóg dara Siteu rek lañ bëgg ñu ne moom du lamb avant làmb la ndam rek bu neexee yàlla suñu borom. alxuraan da koy duma. su ko da koy mu daanu maa la wax léegi. da koy dóor mu daanu. Siteu. nee nañ. bon yow. nee nañ da koy mu daanu. nee nañ Siteu da koy dóor mu daanu loolu la ñuy wax. ma lii lan la Malick xoolal li Malick kanam ci ginnaaw foo tourné nit la. Omar Omar daa nga jaaxle mais tey gën ngaa jaaxle ndax lii lii lii lii ba lii bariwul ci làmb ñu ñuy sotti ndox ñu ngi ñuy sotti ndox ñu ngi ñuy sotti ndox ñu ngi sotti ndox ndeysaan ñu ngi ñuy sotti ndox waaw. waaw xoolal moto yi moto waaye moto yaa ngi yaa ngi doon ma ne li may laaj mooy ndax dina bëre ba bëre. ndax ndax ndax ndax ndax am na bëre. wala lii la la. xabar lii war ngeen ko tàmm ci Siteu. Siteu kenn ku ne xam ne nii lay génnee. saa bu combat bi nii lay génnee lii war ngeen ko. mais man damaa yéemu man damaa yéemu. Omar takk der xoolal yaay. xo may la xoola borom moto bi may la xoola borom moto bi mi def waa kii lu muy def ni Malick pap pap ni nga daam ni nga daam ndeysaan ndeysaan di topp si te demuñu ñu ko fi demuñu ñu ko fi xaar mais li billaay wallaay ndeysaan Malick demal demal pap bu dugg demal dugal ndeysaan Malick fi nga toog a baaxul naan Siteu Siteu la naan Siteu Siteu la ñu naan Siteu Siteu la waaye foo romb rek nit ñaa ngi génn lii moo la war ne Siteu bëgg bàyyi nañ ko xel kenn ku nekk nañ ngeen xam ne tey jii donte mënu ñoo dem stade tam seen yi dem na stade ñu ngi ñu ay ndox ndox nag jàmm la ñu ngi ñu sotti ay ndox mais ndox jàmm la ndeysaan Malick cey làmb cey làmb ji waaye di gërëm ñu ni bàyyi xel ci Dakar Buzz Malick jëla bañ a ca kaw fan si Siteu yaa ngi ne soppe Siteu yaa ngi noonu ay doomu jàmm gën lanu ndeysaan Malick xoolal borom moto bi kii li i def nii lii ba jàmm la moom Malick kii li muy def nii Malick kii li muy def nii amul amul oto. waaw lii moo gën a neex a liggéey. waa Dakar ak si amul tey mag si bay sax bu ñu liggéey. Omar waa Omar. Omar Omar waa Dakar ak si amul. ma nga jox tey sax bu ñu. waa Dakar ak si amul lii moo gën a a a a amul oto. am mbaa daa ko bëgg a dugg maal bi maal am na ko dugg ci maal ba. am na ko bëgg a dugg ci maal ba ña nga dugg ca maal ba. maal ñi ñaa nga dugg ca maal ba mujjee fan man dama ah, moo waral bis bi. xam ma bëgg. xam tey seen inter seen inter arène nationale nan la war a fi ñoo fi. nañ seetaan rek. nañ seetaan rek. Boucar a ngi les temps l'homme social. sama xarit bi yàlla sa jàmm yàgg. amiin yaa lekk sa xaalis de. ku ma dara seetlu ma ca xaalis mais maa ngi lay bëggee. Boucar jël na ko jàpp nañ ko jàpp nañ ko daa këf téléphone jàmbur jàpp nañ ko téléphone jàmbur la këfoon jàpp nañ ko xam nga ja daam ñiy gàmm ak ñiy raas jéem daa këf téléphone jàmbur jàpp nañ ko Omar nag daam ñiy gàmm ak ñiy raas jéem Tokyo Maxi. ay waay ay waay Malick lii lan la lii lan la lii lan la Malick ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan tey làmb moto yaa ngi jóg scooter yaa ngi jóg nit ñaa ngi jóg waaye Malick mbooloo mi mbooloo mi li topp Siteu mais li topp Siteu li li topp li li topp Siteu li mbaa jàmm waaw li yëpp tarkindaa yaa waral rek li yëpp tarkindaa mooy borom dëkk bi moom moo waral li yëpp waaw dañ ko ñaanal yàlla yàlla may ko ndem rek ak taw féex mu bëri ñu daan ko mu ñaax bëri ñu daan ko ndam bi day ñëw jàmm ak incha kanam lay leer. tamit ku ne ngi wax li waaye Malick. moto bi lu muy def nii. jóg na taxaw. jóg na taxaw. jóg na taxaw. jóg na taxaw. jóg na taxaw. moto yi Malick rek dem rek loo gis tey waay bilaay ndam rek inshallah Papa Sow dina delen te set Papa Sow amul dara amul ndam kese inshallah awu leen. Papa Sow dañu koy duma daal. Papa Deme ci croisement bi nag ñu ci croisement bi nga xam ne moom mooy croisement bi bi. croisement bi nga xam ne moom mooy bi. ngeen gis sama gars yi nii si te ndeysaan mbooloo mi koy xaar ci bi autoroute bi autoroute lii amul sàmm. mais Fadel Fadel lii lan la Fadel lii lan la Fadel lii am. Fadel lii lii lan la lii lan la lii lan la lii lan lii ci ne borom dëkk bi na ndax lii lii bariwul lu koy gis ci làmb bariwul lu nga koy gis ci waaye Malick xoolal borom moto yi Malick xoolal kii li muy def. ay waay kii li muy def moto bi lii ndax wóor na. bàyyi bàyyi tamit man nangu naa ne mooy borom dëgg bi moom si taa moom Sénégal Bamba Bamba Siteu moom Sénégal Siteu moom Sénégal route nationale la baare route nationale route nationale la baare booy taxawal taxawal taxawal Pape Pape doo taxaw ba oto bi ñëw ci oto Siteu ñëwagul xaar ba mu ñëw du ma rek feete mën na feete àll moom Siteu kese mën na feete national. la baare route nationale. route dañ kaa téye. mais mais lii route nationale la. route la Siteu occupé. kaw passerelle bi baale kaw passerelle bi nit ñi nañ fa def kaw passerelle bi nit nit ñaa ngi ci kaw passerelle ba. Oh, maa ngi xool image bi yow. ay waay kii lu muy def nii lii ndax wóor na. waaye kii ndax moto bu neex la yor waaye kii moto bi li muy def nii Omar mënoo lii de Omar xam nga doo ko def mukk ci àdduna mënoo lii waaw mais waaw mais noo gisee génn si waaw lii dañuy kontaan faire nekk doomu jaam lii ndam rek moo si mën a tegu Fadel barke Serigne Touba. mais tey lan ngay wax supporter yi côté Papa Sida Papa. Sida Papa ñuy wax affaire yi fair play rek ñu def ko si discipline. que le maire gagne que le maire gagne. waaw waaw waaw waaw waaw. jërëjëf koy dégg moom sama moom sama nit la. waaye mbooloo mi nar a topp Siteu mbooloo mi nar a topp Siteu ma ay waay kii ay waay kii moom lu muy def ay waay Malick lii ndax wóor na président de la Macky Sall sax mënu ko billaay walaay taalaay Papa Sow bu ñu ko xam ni xoolal du dërëm dañ koy dëbb suba nga ñëw seetaan si ñu Siteu la ndeysaan ku nga fi tam ñi fi xaar ñu ngi toll du nestele waaye Siteu dafa jël lu national dañ ko baale ndax Siteu foo rob mbooloo baa ngi fi taxaw di ko xaar ci Siteu di naan le phénomène de Lamsar mais du phénomène de Lamsar c'est le phénomène de la phénomène de l'arène ndeysaan phénomène de l'arène muy loo xam ne gis nga nii kenn ku ne ngi wax kenn ku ne ngi wax. ñoo tey bëgg Siteu tous parce que Serigne Bamba Siteu pap pap taxawal ndeysaan Siteu alkaati yaa ngi ko jiital gis nañ fi sécurité bu am solo nag waaye ñoo xam ne làmb foog ree la làmb foo la ndam ndam ndam barke sëñ Bamba dañu am ndam incha allah bu neexee yàlla dañ koy daan barke sëñ Touba Siteu bu mu dee xale si kawam barki sëñ Bamba koy door mu daanu ku ne wax Malick Gueye kii def yaramu neen kii def yaramu neen yoro mana focus man Siteu kese barke sëñ Touba amul ragal ku dee sa yaa juraat ne ne ne Malick Malick Malick ne ne ne amul ragal nee na amul ragal ku dee yaay juraat waaw bu yaay sa yaay préposé fu mu jëm ba sa yaay bakkan dañuy laaj bakkan bakkan nee na nee na nee na si te la ku dee ban ay waay kenn ba cee dee bay esat bay esat nii bay esat amul leneen ñun dañoo liggéey gaan dañoo toog ci suñuy tànk su bëggee ba Thiès sax ñu ànd ak nee na noonu bay esat nee na bay esat Thiès laa jóge Thiès Thiès Thiès laa jóge Thiès borom barki borom daaru ko daan day jàpp rek defee ko ngay duma daan. lamb suñu yëf la. lamb suñu yëf la. ñoo xewle tey dara xewul ñëpp yëngu bi laa yal min bi daa jóg. moom li mooy borom dëkk nit bi kese la. ñaar bébé seen. ñaar bébé. Malick li topp Siteu li topp Siteu ci mbooloo foo natt weesu na fa natt weesu weesu na fa ngeen gis ni Siteu jàmm ngeen génn nañ Fass Mbao Sicap Mbao tey Baleeb génn nañ ànd ak Siteu seen doom war koo gunge war koo ñaanal ba mu dem fee ci muy loo xam ne tey jii. lamb ba lamb sosoo ba ne lu ne na waaye lii bari ko gis lii bariwul ci lamb lii bariwul luñ koy gis ci lamb banlieue bi jóg noonu waaye ñu ànd ak Siteu Malick ay lamb xoolal Dakar ak fi Dakar ak waa daa paat danoo ab scooter danoo paat ndeysaan cey làmb di gërëm képp ku ni bàyyi xal nag internet yi rawatina ñi nga xam ne ñooy seetaan Dakar Buzz di nuy diaspora bi di nuy supporteru Cité yi waaye di nuy supporteru Papa Sow yi di wax làmb fair play la ndam li génn réew mi ñaari ndamay dugg waaye ñaari ndamay génn po bi li may fàttali bari na maa rek xam nga artiste nga po bi lu la war fàttali waa périg ba fii laa tolloon kooku jëloon périg ba ca ca ca taaba waaye kenn du jël périg am na nag kenn ku fi jël téléphone jàmbur ñu jàpp ko waaye li may wax rek mooy làmb la nan xam ne làmb la. saa eh, yow wala la wala doof la amul ndéem la. Baye Fall bi ñor moom kese nag du keneen moom dong ñu tax. mais mu Papa Sow gi lay def. waaw indi fekk fi lu ko gën a lu ko raw lu ko gën billaahi. baa ngi lay bilaay fii la gën a buujoo lu mu indi rek fii la buujoo barki sëñ Fallou dina gaaw day gaaw dina gaaw dóor bu daanu la ma la waxoon rek jàmm rek jàmm rek nga gis bilaay moo fi am jàmm rek incha allah jàmm dañuy am waaye mari li topp Siteu jaaxal na et puis intersection boo dem fekk fay nit dem nan bu jàmmagën fekk fay nit bu nesele fekk fay nit ñi ngi fi poste Thiaroye fekk fi ay nit foo dem rek fekk fi ay nit di fa xaar Siteu ay convoi ay convoi moto convoi moto convoi oto mari taful chauffeur moo ne ci Pape Diop bi moom xam nga picc mel nii moom moom moom yéeg koy dundal gis noonu moto yaa noonu moto yaa ngi noonu nga ni yalmin bi waaw nañu xaar ñooy ñëw. waaw nee na mi ngi mi ngi fekk. barki seen Bamba dañ koy door bu dee. day door bu dee la lin bi amul ndey door bu dee la door bu dee la lin amul ndey leneen. Siteu Ama Siteu. Gris Bordeaux Gris Bordeaux Malick jërëjëf ba tey am mbégte rek ci ñi leen toppale direct ñu ngi toll fii rond point poste Thiaroye jëm fee ci arène nationale li nga xam mooy diggante Siteu ak Papa Sow waaye li ma lay wax mooy ngeen gën a bàyyi xel làmb ngeen gën a cëral làmb ndax tey mbooloo mi topp Siteu te ci làmb le ñu yaakaar waaye ci Siteu la ñu yaakaar Siteu day yëngu ci aspect social euh, sañu ñoo far mais ñu ngi ñaan que le maire gagne Papa la Papa saw ndaanaan la Papa Sow ci yar Papa Sow ci teggin kaay bu fekkee muccul kaay en tant que mbër kaay du ma la baal du ma la baal dafa leer kaay dafa leer. Corta ngay ñëw Malick 4-4 Ford baa ngi noonu 4-4 Ford baa ngi noonu waaye Malick xoolal nekk sa kanam Malick nekk sa kanam di ko xaar ay lamb Malick Serigne Touba Papa Sow day xaar. day taw rek ñoo ko fa am. yokk ko barki sëñ Bamba. papa de papa de ne mi ngi leen di xaar. day taw rek day xaar rek barki sëñ Bamba. papa day xaar ba wala buñ ko yaay yóbbaale ko. tos bel baral. saa yi lu mu waxoon bi signature bi na si delluwaat. mi ñu ngi koy ñaax ndam. di ko ñaax ndam. na mi ngi xaar. yàlla baax na yàlla yàlla ànd ak ñun Siteu xale la xale la yàlla ah. fi ñu jëm. tey jii yàlla yàlla ànd ak ñun. nee na yàlla yàlla ànd ak ñun ngeen ànd det ci bi ci Dakar ba heure bi nee nañ heure bi nee nañ heure bi heure bi Siteu war a ñëw moom la ñuy calculer waaye combat romb nit ñi mooy problème parce que nit ñi ñoo bari mbooloo mi koy xaar moo bari muy kanam ak ginnaaw.

ñun ñooy ndam ñun ñun ñoo moom lépp. Malick li topp si te xoolal étage bi xoolal ba kaw balcon yi ñëpp a ngi ñaan. cey cey sama cey la waaye kii def yi kii. Siteu kase amul leneen bàyyi oto bàyyi oto Siteu kase amul leneen ci kàttanu yàlla. mais mais mais yaa ngi yaa ngi xuloo xaaral nga tiit lan la mais mais mais looy xuloo. loo gis. dem rek yàlla ci yàlla may dem. papa nee na mi ngi nekk xaar. Malick Malick Ford bi la Siteu nekk. ci kaw. Abu Seck moo ne ci kaw noonu. Colifay 2 oto bi sëfu na. 4-4 caat. Siteu a ngi noonu. Waly jëlee kaw bi kaw balcon yi ñëpp a ngi ñaanal Siteu xoolal kaw balcon yi li ma jaaxal ma fu mu romb rek am na ñu fa taxaw di xaar ndeysaan eh, demal Pape ñi yu ñu heure yu ñu raw Pape jaar toppal ñi ngi toll rond-point fi mooy rond-point ñi ngi waaj a waaye mbooloo mi fi nekk doy na cey borom oto yi kenn ku ne ngi def ay yëf borom kagolik Siteu nga ca kanam mais noo mais noo gisee la mais noo gisee laam mais noo gisee. dama cee rax dama cee rax. den da cee rax day dox ay yitteem. ndeysaan da ngay dox sa yitte. da ngay dox sa yitte kon baax kon baax na. moom laa faral nag. leer la. tous dara. Siteu. jàpp na ko. ndeysaan cey làmb ñu ngi fii ci ñu ngi sib si ñu ngi ni toll sib si gis ni Siteu fu fi dem mbooloo maa ngi koy xaar ñu ngi toll exet Siteu di waaj a jub egg arène nationale li des pour ñu yegg arène nationale bëreetul waaye embouteillage beeg nit ñi ah yow tam bis bu mag la. Papa Sow lay ëpp dara Siteu rek lañ bëgg Siteu rek lay noyee dem ñëw anil mu jeex. Malick lu ne gis nga ko tey waaye jobbi nee na nee na ñaari événement la ñu am na Magal Touba ak combat Siteu amul benn événement ñoom nee na bis yooyu mooy seen bis. waaye li ma jaaxal mooy muuma bi Sikar Malick moom gis naa ne waaye muuma bi Sikar muuma bi nee na day Sikar. lu la ngay gis waaw mais tarki maa rek jëlama tarki ndaay tarki ndaay yaa ngi noonu gis nee nañ Dakar ba dañuy suivre ñu ngi ca àll bi nee na mi ngi nekk France waaye Dakar ba dañuy suivre tarki ndaay yaa ngi noonu neen day dóor koy dóor papa sa wala man ah papa waaw noonu baax da koy mu daanu barke borom Touba ah, incha allah da koy mu daanu nee na benn jooy la dóor mu dee Papa Sow néew lañ ko def tey. néew loolu ndax wóor lool benn rek mu de Malick jëlal ma ko ma ngay daw ne mi ngi ci combat bi ndeysaan ma nga ci bokk ci combat bi ñu ngi ñoo ngi ma leen di xamal yéen ñuy suivre direct direct bi ñu ngi toll fii waaye toll buntu Pikine Malick mu dama laa mujjee faaman. wax Siteu ñun ndam rek ndam rek ndam rek lañ koy ñaanal. ndam rek. Ah, waaw stade laa jëm waaw. ah bi. lan la ceeb jëloon. bi Siteu laa koy yóbbu Siteu Siteu. yal na ko yàlla may ndam. waaw. ñun ay mbër. kilomètre. amul yooyu si des. si des kese yi amu leen. mais lii da xaj na stade. ndam rek ndam rek di ko ñaanal ndam rek ci barki Seydina Mohamed. na ngay ñaan kenn ku ne ngay ñaan na ngay ñaan. amul dara ay ay ay mooy lan Siteu Siteu am na lu ne xam naa Siteu bari nay muuma de Siteu bari nay muuma kenn ku ne ngi wax muuma bi sax a ngi wax yàlla na ko yàlla wéral ba mu mën a wax waaye ñu ngi toll jëm buntu Pikine ñu ngi jëm buntu Pikine muuma baa ngay wax ba ngay aalu rek muuma baa ngay aalu. cey ba ngay wax muuma bi Siteu la war na Serigne Touba billaahi jël bu yomb lay doon jël bu yomb dana billaahi day yomb parce que tànk yi de doo dégg xoolal mu def carte d'appui damay doo dégg day ñëw saa da koy xajal billaahi wallaahi kanam lay doo dégg da ba waaye gendarme yi ay jàmbaar la ñu ngi salone ci kaw tali bi ñu ngi salone ci kaw tali bi gendarme yaa ngi salone ci kaw tali bi làmb ji wax dëgg yàlla ku ñëw ci jàmm di nga ñibbi ci jàmm gendarme yi ñu ngi salone ci kaw tali bi waaye nga leen kenn ku nekk naan si sita sita la wax nga làmb de mënu cee ñàkk ndànk rek ak prudent avec prudent waxan junu gaay ñun du ay bandi ay noobu lañ Fadel gaay dañoo war a naw eh, est-ce que dana yomb waale xoolal kii mooy dawal de mooy dawal mi ngi wax ak man kii da man man de lii mënu ma ko Omar lii de bee dawal mooy wax kii ni dawal mooy wax Ford Escape la waaye mooy 4 x bi mooy dawal mooy wax Papa Sow gi leen di xaar de Diop li ngay dawal kontaan naa ci de sama xol sedd nag Pape Chéri Adja et Pape Chauffeur Dakar Buzz doo moroomu Xamsa Samba yaa waxatuma Fadel yaa mën ñëpp waaye suñu ñoor bi kontaan naa Samba toogal Samba dega ayo Samba jooda galema Samba jooda galema junior mooy départ su mun taga mun taga toogal junior du sa morom ñoo la man Mountaga joodo gaale ba Samba joodo gaale ba xoolal ma ñuy def kooku ci maal bi Malick xoolal ñu ci maal bi Malick xoolal ñu ci maal bi Malick xoolal ñu ci maal bi ay waay oto bi ndax dara ana borom ay waay ana borom daa bëgg ko jël nan dem ba armeel armeel armeel ma nga ne borom poy armeel ar borom poy armeel fa am ndeysaan gis nga ni ñi ngi naan baja baja Pa Abdou Fall. Malick borom oto bi xoolal li muy def ay waay kii li muy def ndax wóor na li muy def ndax wóor na li muy def ndax wóor na. eh Pa continuel continuel. Pape kontaan naa ci li ngay dawal kon Pape ci chauffeur bi Malick ci cadreur bi Junior ci technique bi Omar ci garde corps bi ak lii programme bi. Siteu nag mi ngi toll fii ci station EDK bi nag jëm dëkk arène nationale fii la leen di tàggoo nag li des nag di leen ko xaar ci Dakar ba di ko am waaye yeddu doon kër waaw waaw mais loolu xam nga xorom xorom xam nga xorom xorom xorom da mbër yi bokk war nañu koy utiliser mbër yi dañuy utiliser lu bari xorom mbër yi dañuy utiliser lu bari xorom ngeen gis ko ni ndeysaan arrivé site arrivé arrivé site arrivé Ndeysaan ñu ngi fii ci rond-point Xelcom Basse li des pour dem arène nationale bareetul waaye li xaar Siteu li xaar Siteu waaye Malick jëlee ma kii Malick taxaw. eh borom dëkk bi lañ wax borom dëkk bi yegsi na. waa saa bi kuy ngaaxa demal bi yegsi na. ana ah? eh? mooy nante bi. Malick jë Malick ma ko jigéen waaw waaw rond-point dagal ko fii dagal ko fii